ne kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf gan gi ñu gane si ba noppi yamale ñibbi ak ko ci réew njëkk a dégg ko coronavirus ci réew mi boobaak léegi fi ñu jaar ak moom fépp yéenekaay bi di l'observateur xëy na fa jaaraat ak ñun ba jaare fa jox kàddu gi professeur Moussa Seydi njiital service maladie infectieuse ak tropicale ci hôpital Fann ñi ñu dénk wàllu wér gu gi ci réew mi taxawaay bi ñu am ci mbas mi fa ñu doxleeg fa ñu amee ay rëq-rëq lépp l'observateur dikkaat na ci gi ba ci coowal deuxième wàgg gi ñëw fekk wàgg bu njëkk bi lottal askan wi rawatina ci wàllu koom-koom gi lu nekk l'observateur nee nañu dund nañu ko ci réew mi réew mi quotidien moom it sa loolee ci la xëy bi dañu fàttali ne at wopp ji def na ko ci réew mi ba faat fi lu toll ci juróom-ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñetti fukk boobee ba tey askan wu Sénégal ñoo ngi ci jaaxle ak njàqare gu rëy la tribune nañu coronavirus bàjjo bi def na fi atum yàlla waaye def na fit ay dégâts yu dul jeex ak i loraange suñum réew di Sénégal le quotidien na ci ñàkk yi di vaccin yi ca la wékk yaakaar ngir a xeex ak feebar bi Sud Quotidien mel ne ku naan ñu kon day nañu gën a baral yëf yi ndax seetlu nañu ne vaccination bi ni muy demee ci réew mi dafa yeex le mandat dib yéenekaay bu bees ne ko boole cekkit ségrégation gu rëy di wata taxas jëme genn wet dafa am ci anam yi ñuy ñàkkee nit ñi Walf Quotidien feelu ko ne ko boole cekkit borom darajeeg borom doole yi ci réew mi ñoo ngar daajoo ñàkk yi mu di vaccin yi bàyyi ñi ko gën a soxla te seen loxo jotul seen ginnaaw journal bi boole kooku photo di nataal wàllu ci ni kilifa yi réew mi ngar daajoo vaccin yi étudiant en année clinique yi ñoom it ñoo ngi yuuxu wàllu ci libération nee nañu ci jamono ji ñuy ñàkkee maire yi ak politiciens yi ci réew ñoom kenn boolewu leen ci te bés bu ñu xëyee ñoo ngi en contact ak maladie heure bu ñu demee l'hôpital ne dañoo bëgg ñu ñàkk leen li ñu leen di wax moo di fonctionnaire yi ci administration bi ñoom la fi dencal ñàkk yi bu ko defee ñoom ñu wëlbati ko toppaat seeni parlementaire am keroog àjjuma ci assemblée nationale juge bu huitième cabinet bi war a lijjanti coowal mbës mi dox digganteem ak Adji Sarr na ko suba ci àllarba ji ci yor yor vox fàttali ñu ne Ousmane Sonko neewoon na du ndax yoon wi gaañi jaar ba dindi immunité parlementaire am tegeewul ci yoon Le Quotidien nañu en tout nañu ko suba ci yor yor ca tribunalum Dakaaru ab convocation ci loxoy awakaam la ñu ko teg Le Quotidien nañu na ci jëmi boppam it convoqué nañu ko ca tribunal ca bureau juge ba suba ci àllarba ji àllarba ju nar gudd te yàgg la tribune gis na ne mooy xaar njiital parti Pastef di Ousmane Sonko mi ñu convoqué libération nañu maître Khouraychi Ba bokk ci avocat yi Ousmane ko convocation Ousmane Sonko jox ko këyit ne ko desarcel avocat bi ne gendarme bi danaa jël convocation bi ndax respect waaye duma ko mën desarcel li fekk waxtaanu ma ceeg borom convocation bi bu noppi journal bi nañu moom maître décharcé maître Khoureysi Ba dellu section recherche décharcel commandant jël convocation bi yóbbul Ousmane Sonko waa section recherche ñoom jël décharge bi yóbbul siis bi l'observateur xibaar ñu ne kii di Assane Diouf ak Amadou Kélé dox seen ñoom ñoo nga ca kaso ba démb ci lañ leen mandat dépôt ñu fekk ji Guy Marius Sagna jigéen yi Ousmane Sonko toll ci fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo nga ba léegi ñu téye ca yoon xamaguñu fan la féete am na it kenn ko bokk ci parti nit yi diine yi soloon seenu dàll doon jéem a dox tànki jàmm ci coowal mbës mi dox ci diggante Adji ak Ousmane Sonko avocat bu Adji di maître Alaaji Diouf xëpp na ci cere ji suuf nee na nit yi diine yooyee nañu yem ci diine ji Adji Sarr du wax ak kenn ku dul justice bi soxlawul médiation bëgg ko justice bi la doyloo te it moom la yaakaar bokkul ci ñuy ŋàññi justice réew mi keneen ku jëm ci justice tey ji Les Échos nee nañu moo di ndaw si moom Sweet Beauté di salon de massage ba yëfi xeewoon mu di Ndeye Khady la bi convoqué ngir war ko na nag ñetti ga maître Ousseynou Gaye ak maître Bassirou Baldé lise ko nañu waaye moom Ndeye Khady Ndiaye borom Sweet Beauté bu amuti mbokku dëgg kaso balay fanaane ndax procureur bi sàkk woon nañu mandat dépôt ko